والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات وخيار والصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض من ساروا لهم لدى الله تخصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في دجزار لهم لدى الله تنويل سفى عللا إذ ذايل الكل أدناس وأقدار بنصف للخلق والإيمان قد جبلوا كفرا وقبض الذين أعلته الكفار والصفح والحلم دأبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا وتابعين إليهم إلى يوم الدين ورضي الله عن سيدنا أحمد بن خادم الرسول ونفعنا الله ببركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jullit ñu نيو دي di زياره دي leen ziyaara اك دي baal ak te نيان سو بروم بول مو suñu ñu sant yàlla suñu borom li ñoo ñu fekkee laylatu mawlidin nabi bokk ci guddi yi gën a tedd njëkk ñu teg ci loxo yi jëwriñ ñi waaye nag ñu beral nuyoo mag nga xam ne teew nañ suñu biir tàmbalee ko ci sama soppi boobu bi toog sama wet Serigne Dame Thioune di sunu xarit di xarit suñu bopp ci dëkk yëpp xam nga ràññee ràññee nañ ci nag sëñ Cheikh Ouna Sylla ñu ko nuyu ñu fi nekkee ñëpp mag ñëpp daal ñi nga xam ne xam naa seen borom ñëpp ñu féete seen wàccuwaay ci loolu lañuy jaaree jox bépp mbokk jullit mu fi teew ñu ngi beral nuyoo waa daaray alxuraan yi ak waa daaray yi

له ليلة نصف شعبان tey mooy laylatu mawlid nabi guddi gi juddu yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla wax na ne lu mu bind moom moo tax loolu nag lu rëy la kon dañoo xam ne ku rëy ku màgg wala bu ki gën a rëy wala ki gën a màgg moo tax ñu dajaloo fi tey ku ñu fi ku ñuy màggalu si sëriñ da bàyyi da ngay def lépp waa daayira boobu ñëw bu dee ca tijaan yaa dañuy bàyyi la def dem ndajaloo ko màggal Seydi Hadji Malick bu dee waa kër borom Touba dañuy bàyyi la ñuy def dem màggali Serigne Touba bu dee njabootu Serigne Touba ku mu mën si la ñuy màggal moo tax ñëpp julli ci dëkk bépp amul tariixa fenn ñëpp ñoo bokk lépp bokk jëmuwaay ñoo ko mos a bokk waaye tey dañoo boole boole lépp muy leen. ngir kenn rek mooy ki nga xam ne nii moo ëpp sens li yàlla bind ki nga xam ne moo gën a mat ci li yàlla bind bu akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara wal mis lu xatt la ñu raa wala mu raa fi si gën a màgg ki nga xam ne ginnaaw bu màggam ginnaaw bi ko yàlla bindee ku mel ne moom kenn du ko gisati ci màggaay kenn du ko gisati kii ñuy màggal tey mooy nurul ki nga xam ne ca leeram nga ci la yàlla jéggale suñu suñu maam aadam keroog moo ko niital ba mu mën a wax rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirina ci leeru kii ñuy màggal tey la ko yàlla leerale ba mu wax loolu ba yàlla jële kii ñuy màggal tey ci leeram la yàlla fayee def sawaraw ibrahima keroog ba yàlla di wax sawaraw naa ko yaa naaru kawni bardan wa salaaman ala ibrahima ci leer yàlla wax jàng kii la yàlla dimbalee xetti leen noohin keroog ca gaalam nga kii moo génnee keroog Yunus ci leeram ak ci mbaaxam la yàlla génnee Yunus ca biir gëdëm kii ni ñëpp xam ne mooy ki nga xam ne كيف فوق هم نداش نصور لمن بفسيه نقوم مثال دم جلور لكن خم كم وهو النجي الذي وهو النجي الذي في وسط خلقته وقلته قيل تصدع وعشرة جاي بكديك واي كديك تد كدي ملل من جمم جبتاي واي لطنا إني ننتلونا كنا ولم يجي من سوي إلا إخوان بلاخا بسجع والشعر والشعر مما هزن مرشاد وحكري داق وقت أدرم داق بن داق وي بن وي بدجل لب لنم إني وين كار تملا كان صلى الله عليه وسلم نقوم كن فو ما نتوقع بن جمل برجع دل وقت لو تيوم دب صلى الله عليه وسلم بو بعير نقول نعم نور البدار مو ينير عن خدمة كل جبدو بعجنا كل جار بعجنا kii moo tax ñuy julli di wax ihdina siraatal mustaqim yow yàlla yàlla mënu gind teg ñoom ci leeru nuurul hudaa googee jëm àjjana kii daal ñu dajale tey ñu dajaloo fi ko màggal li nu tam doy tam doylu tam doyloo waaye bu ñu jéemee xam ku mu doon di ko waxtaane ñun ci dañuy lu lott ci mënuñu kenn xamut a ngi nii ku dul yàlla borom la ki nga xam ne kenn mënu koo misaal nit bu mu jéem ci xam tox mi ngi nii ñu jéem a waxtaane tey mooy njub ga mooy leer ga ki nga xam ne nii bis bu mu bi mu gañee li tax mooy indug leer Sëriñ Tuubaa dafa wax ne nuurun azimun xad bihi qusuura xaysara man kaana fii umil xuraa makkata xayrul um yonent bi salaa bis bu mu feeñee leer bu mag a mag jolle na màkk ba Rome xam nga diggante màkk ak Rome soree na lool ba ca palet buurub Rome ba Qaysar ku fa ku mas a nekk buurub Rome yaay tudd Qaysar moom la ñuy wax euh, César arab di ko wax ba ca palais Qaysar ba ak leer gis nañu boo xam ne màkk la jógee gis yoon yoon bi sallallahu alayhi wa sallam gane am xam ne léppam leeral mooy nuuru sama wati wala gis muy leer ci leeram lay leer ëllëg yi képp ku suñu borom tin ci moom lañ jaar ci ba ba tiim la képp ku ñu ràmm nit képp ku ñu ràmm ci mbaaxam lañuy jaar baram kii mooy ki nga xam ne nii bu ñu waroon ci adduna bi ñëpp dañuy àndandoo fa ak dem sawar kon nag kii daal mooy ki xet li humanité bi yëpp mooy ki Noohin doon xàllal mooy ki Iisaa doon xàllal mooy ko Muusaa doon xàllal mooy ko Yuusuf doon xàllal mooy ko Yunus doon xàllal muy ko ñëpp doon xalaat moo taxoon yàlla yónni ñëpp ku suñu borom mës a yónni échec nga ci sa mission ba des na moom nag bu ñëwee ci la lépp mat mooy ki nga xam ne bi mu ñëwee ba dem ci la ñëpp yaakaar ak ràmmu ëllëg njëkk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baatu ràmm kenn mësu koo ñëwee tudd bi mu ñëwee ba dem rek ci la am ràmm ci lañ yaakaar ne ëllëg ci lañ ràmm ñëpp te ñun kat amuñu lu dul Sëriñ wax na ne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam ëllëg ci la ñuy ràmm ñëpp wax na sax ne moom la ci ëllëg moom mooy ràmm ñëpp kon ñun ñëpp yëgandoo nañ tey ne sëriñu sëriñ si moo woote sëriñu sëriñ si lañu woote war nañu kon képp ku fi teew maa ngi lay ñaan yàlla niitalal sa àdduna ak sa àllaaxira Mouhamad mii nuy waxtaane kat mii ñu dajale fii sa tey ñaanam ci àdduna moo nekkoon rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan loolu rek a nekkoon ñaan yow yàlla defal ñu jàmm ci àdduna defal ñu jàmm ci àllaxira yow yàlla yàlla nga ñu defal leer ci àdduna yàlla nga ñu defal leer ci àllaxira yow yàlla yàlla nga ñu xéewal ci àdduna te àllaxira ëllëg it yàlla nga ñu xéewal naan yàlla nga ñu leeral yoon wu jub ban mën caa jaar fii ci àdduna te bu àllaxira kat yàlla nga ñu leeral yoon wu ñu dugal àjjana li kat moo ne woon yàlla kon ñun ñëpp yàlla nañu ci tànn. Euh, Serigne Touba wax ne nag màggal ko nag moom lu war la ci bépp ci bépp ku jiite lenn la di ca woote rek ci diine lislaam rek woote màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf laa war ta'zimuhu yanhatimu ala sabil taqaddum kaaraange la tamit ci bépp fu ñuy màggale Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ihyaa'u mawlidil bashir yax yaamil iyaala wa duyoo فيه شفاء لصدور لكل حاجه من الدم مجال بدو يوم صلى الله عليه وسلم سكرت لك فمي التكري كون وارتي فلو سلم بوكو دفن بدو مجال لما وقعن كارو كتبت البرد بيكا حضر في جاني الله وحاتي يوم دم صلى الله عليه وسلم بدو نواكي تاي جبودي في جدك بي في لاي واجي في نوكي مجال في ني مجال بدو لك لاي لاي لاي واجي كيف بكم يسعي ويرسل لك. say xarit sax boo ko dee feete bu ñëwut wala ñu bind la message sax nga mel te tey mooy anniversaire ngeen bi ñu def xoolee benn mbir la ñu mu foore benn ñu mu foore ak ku mën a doon rek ñu mu foore ñu boole nit ñëpp ñi ma sa judd ñëpp waxuma 7 milliards 500 yi nekk ci àdduna bi waaye ñi ma sa judd ñëpp ñu ne kii moo tax ñu bind leen kii moo ci gën kan mooy ko te xaw ma waaye fekk na sama ñi ma am muy samay maam sama ñi ma yaakaar samay sëriñ ci àdduna xeeñtu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngir dañ mas def téere yi Sëriñ Tuubaa sept mu dund lépp ngir yonent bi kon boobu kan mooy Muhammadu xam nañ Sëriñ Tuubaa Xaadimu mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa neexut a xam waaye waxee na gis nañ ko jàng nañu téereem am nañ ko moom mi nga xam ne da ca ñun bàyyi nañ suñu lépp nëpp Serigne Touba xaari mosul bàyyi dem sabar sabar ak Serigne Touba moom mi nga xam ne jàpp nañ jàpp nañ ne xam na xam na wax na leen ne leen ku ngëm ca mbir bu ñu ko yóbbaale far yóbbu la far wax naa leen ne leen ngëbal ca mbër maa nga ngëb këj a ngëb koo ngëb bu wér bu ñu koy yóbbaale yóbbu la far moo tax ñu ngëb bu wér Serigne Touba xaari mosul moom mi nga xam ne ngëb na bu wér ci dem sabar sabar kon nag koo nga bu wér bu ñu ko yóbbaale yóbbu la tax kon lenn rek la ñuy mën a màggale yow tamit solar si màggal bii ba bis bi dellu si mooy li mu indi woon nga respecté nga fonk nga xam ne màggal yi li ci jiitu mooy wormaal worma nit wormaal nit mooy respecté ko léppam bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg a màggal koy respecté mission bi ñu ñëw muy diine jub bi ñu ñëwoon nga jaar ci saa yoo jaar ci ngi ànd ak yonent bi bëgg bëgg bépp dëgg sa kanam jooy nga màkkali ñu yëpp baax na waaye suivre a bëgg yàlla bu wér. jaamu yàlla nag nee naa leen du julli kese du woor kese laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birru man amana billahi ba ca fa aaya ba yàgg bokk na ci waatal maala ala hubbihi te ñi may bokk nii yàlla wax yàlla wax ne yàlla nee na def lu baax du jublu penku rek du julli la wala soow lan du jublu penku ak soow mooy soow dañ fa daan jublu maanaam dañ daan jublu yeneen xëy na njëkk ñu jublu penku. foo dem julli fi ñaar rakk loolu baax la waaye lu loolu rek nag mooy ak baax gëm yàlla bokk na ca gëm yowmal xiyaam ëllëg xam nga ku gëm ëllëg ne dana dekk dana xam bu baax ku gëm ne nag du dekkiwaat du du du teew ci lu ko neex def waaye ku ko leer na dana ay mbiram dana xam yan mbir lay ndax ku rayoon nit léegi-léegi ñu jàppale xam nga ne suba moom doo nekkaat ci liberté moom xam nga bu wér a wér loolu moom nit ñëpp ko xam ku roy fii nii léegi buñ la jàppee bu subaa duñ la gisaat lay dox nii bu subaa ci seen mbir la ñuy yendu te buñ ci yendoo doon te ñaaree fan da kon nag ku gëm ne ëllëg da nga gisaat suñu borom def da li nga li ngay def dana la leer kon gëm yàlla bokk na ci gëm téere yi bu baax a baax téere yi nga xam ne ci yàlla la jógee gëm téere yi nag mooy téere yi nañ xam ne ay dustu ay maanaam ay ay constitution la te ay règle donc yu ñuy jàng nga nga nga àttewu ci téere yooyu lu mel ne alxuraan li mu wax nga def ko lim mu tere nga ba alxuraan nag weesuwul ñëpp digle tere nekk li histoire lim digle nga la nga ca ay alxuraan lim digle lépp mënoo waaye la nga ca man nga def sëñ Tuubaa sëñ Saaliw nee na xàq tubaab yi jafe na waaye ma sa sof te mu yomb na lim digle lépp mu mënoo yàlla lu mu digle lépp kenn mënu da ngay dégg gars yi naan yàlla lu digle ñëpp mën nañ waaye mënoo waaye nag mën nga ma sa tantu xaq trois ci sëñ bi jafe la du dëgg lam tere nga baxu nga jéem a daw la ca des la ca des nag nett li histoire la li histoire yi nag nit bu xamul démbam du xam tayam te bu xam ëllëg suñu démb kon ci dal ngay jox alal ku ko soxla na ko nga dimbali ko nga sa dimbali ko da nga mën ko te yàlla rek tax boo koy dem rek wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu yàlla booy dépense dara ngir moom rek moom moo la koy remplacé ci saa sa waaye nit ñi ñoo gëmul loolu sama sama cinq euros yooyu dem na moom dem na ñàkk naa ba pare koo wax nga gëmoo yàlla boo jëlee xaalis dépense ko boo joxee fukk léegi léegi ngir ngir yàlla yàlla joxal la téeméer de man jaam bi xasana joxal la su am sa yàlla yàlla wax de ci yërmandeem bi ak baaxam ne waman waman sa waman waman jaa bi sayyi'atin falaa yujzaa illaa mislihaa boo defee leneen contraire bi sax moom da ko bañ ba ak maanam ak yërmande ak baax benn la la koy fay mais boo defee lu baax fukki la la koy fay léegi jógeen fukki euro ngir yàlla te bu ci def lenn bu indi ngis kal bu wane dama am xaalis bu wane ne man maa daa ko joxe def joxeel rek ngir yàlla nga xool léegi boo ko gasoon suul ko soo ngir yàlla dong mu jox mu remplacer la ko téeméer mu mat sax loolu loolu na ngëm-ngëm la te naa loolu dëri nag ak kattan su ko ci mën a doon waxuma waaye yàlla moo ci alxuraan wa atal maala ala hubbihi loolu yàllaa ko moo tax ma wax li nga gën a bëgg moom boo ko joxee léegi mu wax ne du ngeen am li ngeen gën a bëgg li ngeen bëgg li fekk joxewu leen li ngeen gën a bëgg du ngeen wala bëgg ngeen am lu baax li fekk joxewu leen gën a na ko xool ku nekk la nga gën a bëgg waaye xam naa ne daal sànq moom ñu toog moom ñu bëgg xaalis la ngi o ma ne xaalis lañ gën a bëgg moom ñoo xam ne sëriñ bi lañ gën a bëgg xam naa am ñoo xam ne bëgg nañ xaalis lool waaye naan bëgg na am na ñoo xam bëgg nañ xaalis kon nag ki bëgg xaalis na joxe xaalis te yàlla rek tax walaay ni sa kon lu baax du julli kese lu bari la façon yëpp la kon nañu respecté lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi lépp ci ñu jëm cee jaar loolu mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li mu indi nga jaar ca lam lam lam tere nga loolu Serigne Touba jàng na loolu ñëpp jàng dama bëgg Serigne bi foo toog di jooy buñ ne Serigne bi nga bëgg buñ laajee addi Serigne bi doo joxe buñ laajee ci kër Serigne bi doo joxe buñ wootee ci kër Serigne bi doo ñëw ba pare fu ñu foo foo foo fu ñu ne Serigne bi nga bëgg jooy. loolu loolu gan xeetu bëgg sëñ bi la diw de am na yéene moom am na yéene waaye yor na ci poosam joxewul gis nga yéene ju ànd ak jëf moo mën yéene kese da ngay dégg ñoo xam ne man jëf yéene man yéene ëpp fay jëf waaye yéene ju ànd ak jëf moo man fuuf jëf yéene kese kon bu ñu amee ametee avantion di dajaloo ci bis yu mel nii nañu fàttaliku li tax ñuy dajaloo kii ñuy dajaloo xam ngeen mooy tam mooy ak dëgg rek kii mooy dëgg kii mooy yoonu dëgg kii mooy indi dëgg moo tax jataayam luñ ca mën a indi lu dul dëgg neenu la kon ñuy fàttali képp koo nga xam ne ñëw nga fii ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa nga màggale bu ne ko sëriñ Tuubaa wax ci sunna sunna nag weesu wu ñu ñu def nii la ko Serigne Touba daan defee moom mag ñi daraan Serigne Touba daan toog ne Cheikh Massamba ñoom di jàng ak mag ñi ñii di jàng alxuraan ñii di xel ay suukar ak café di joxe man la ko waxee ci jësu ma leen euh, làkkali arab ci déglu wolof laa leen wax yu leer noonu la ko sëriñ bi waxee bi wax ne na ci nit ñi di dépensé seen xaalis wala nga jënd suukar joxe ko wala nga jënd lu sax suukar wala tàngal wala miskit wala nga jënd ndawal joxe ko loolu lu sëriñ Tuubaa wax nii la ko daan defee tamit la ca ñu daal di def ni ñu def jël micro bi soññeente soññeente bi ndax ndax moo am lépp waaye nag nan lañ koy ñaan danga koy ñaan kem ñu mu toll kem màggaayam kem darajaam waaye bëgg ñaan yàlla rek mel na kuy ñaan Cheikh Bissir Cheikh mooy moo juróom noonu noonu rek yàlla dem ma ma ma may ma ma jaral suba may ma marché ma sooxe loolu dafa gàtt ci ñaan yàlla loolu laa biir rek bu may def nañuy jox yàlla place am delloo yonent bi kim doonoon jox Sëriñ Tuubaa wàcce waay bu ñu ko defee jataay yi waxtaan yi jataay bi nag mooy sëñ bi da doon conférence rek bi jeex na ñibbi naa jaar na sama bi génn na ci bii bu subaa buñ dajawaatee daye rek sëñ bi waxtaanaa dara du sotti jataay boo mën a dem na nga fa jël dara lu mu gàtt-gàtt yow nga arrêté ko sa bopp jë jëfe loolu xool leen nga am ci njëriñ boo dee def fukki jataay yi fukki fukki fukki fukki fukki waxtan ñu ne nga jël ci fukki njariñ léegi nga am njariñ yu bari fess ci njariñ bu fekke ne nak animation la lu ñew rek nga xol neexay waxtan wa ak yow la la ca neex do am dara ndax do jappo dara mo tax do ci am dara kon ngir bañu guddal man damay jéem a wàccee rek andal rek wa daara ji dem dundal guddi gi kenn ni ko sëriñ bi waxee ñu dem aranaan fanaan di jàng xasaay ba bës set loolu daal mu ne kon waxtaan bi tey boobu kenn yeeweeku am nay xéewal yu ñuy waajal ñu ngi sant ñëpp ñu fi teew di leen ñaanal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah